bismillah inondation yi ne ana xaalis bi tribune yéene kaa ne Kër Massar ak Touba ah, waaw dama ne la limité nag foofee kon lay gën a mité lool l'axe mal ay quartier yoo xam ne day ndox ma wan naa sunu ko ay kër yoo xam ne day seeni borom génn nañu dem tànk nit ñaa ngi ca biir ndox may baccax baccax yi ay tali yoo xam ne dagg na nit ñi nelawatuñ stress koo xam ne kon dafaa toog permanent 24 heures yéene kaa ne inondation yi ni ñu ñëwee ba Sénégal daal di fii def kër daal di fii toog waaw waa xanaa suñ kilifa gi ne wax leen ma gouvernement wu Sénégal bi lee dëggantaan njaay lan la def ngir wàññi ndool gi nga xam ne nag moo nekk ci réewum taax tey bëgg a rey nag waa réewum taax parce que boo seetloo day suñu kilifa yi lee waaw jafe-jafe ak ndool yi nga xam ne kon maanaam moom la ñuy waxtaanee yëpp duñ fa teg seen tànk de déedéet 24 heures yéen ak année gis nga 2020 lu tolloo fukki junni ak ñaar yu toftal ñeenti téeméer ak juróom juróom 12 fukki junni ak juróom juróom-benn fukk ci ay doomu aadama 77 260 personnes laa la wax yoo xam ni kon wàllum ndool googe dalee na laal lu tolloog 3285 ci ay doomu aadama yoo xam ne day daw nañu làqu lu tolloog 433 sites ay bërëb yoo xam ne day ndox mi nangu na ko dama ne la sapeur pompier yi li ñu man mi ngi toll ci 11 995 mètres cubes allahu akbar évidence yéene kaay ne gis nga inondation yi ca Touba Thiès daal dinay nangu ne luy njiig nguur gee njàkk le témoin yéene kaa ne ay milliards te ba léegi ni leen ndox maa ngi ni lée ana xaalis bi direct news en tout cas askan wi day ñi ci biir ndox mi paccax paccaxi laa la wax milliards yi daal ni ñuy teg leen te la ñu nuroo nekk ci biir ndox mi mbedd yi inondé giraawaal yi bari te xool leen fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre 2020 ci la président Macky Sall demoon te Kër Massar xam le danañu taxawal ab plan boo xam ne day ngir xeexeeg inondation yi waaw lu tolloo fanweeri milliards danañ ko ca def yemuñ ca ministre Omar Gueye diggée ne inondation yi jeex na fukki problème inondation yi saafara wu na ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay yoo xam ne day recensé nañ ko ci Ndakaaru Njaay jël benn fan waaw moom ministre Omar Gueye demoon visite ca forêt bu mbaaw xam le ne benn enveloppe fukki milliards ak juróom daal dinañ koy génnee ngir phase 2 bu projet bala yéeni kaay pa jogoy fay bi ne waaye yow milliards yooyee fan lañu jaar ana xaalis bi critique yéene kaay fukki milliards ak juróom yooyee projet ko ca Kër Massar ndox ndox ma wan na xaalis ba de Omar Gueye dàq na nag dugg na ni ruba mooy jusqu'au cou yéene kaay Pape Sarr bi ne xam nga Sénégal sax même bu dee cosaanoo wuñ yow lañ dénk kaay leeral reddition des comptes waaw waaye bii Omar Gueye dafa war a ñëw wuyu leeral nit ñi kon ci fukki milliards ak juróom yi nga xam ni kon moom lañ ko jox ngir wàllum inondation ci département bu Kër Massar Omar kaay wuyu Omar ana xaalis bi te gis nga ci jamono jooje nga xam ne inondation googee ak suusa ak ville de Dakar Alioune Ndoye fa mu nekkoon jugu fa soxaam ci ni daal di nay daas nam na ay weem ba ñu ñëw source a ak las yéene kaay ne Alioune Ndoye day génnee na misilio song na soxna sa Dakar Times de koo xam ne receveur domaine la woon waaw lu tolloo trois cent quinze terrain la am diggante gàddaay Malika seen foot un seen foot deux mbaaw wax naan Nimzaat Sofraco Malibu ak station dix eeway eh Samba eeway eh Samba yéene kaay ne père de famille fonctionnaire yoo xam ne ñoo caxa kon seen suuf soosee président Macky Sall day war naa dellu si ci décret bii la moo tax ba Macky Sall nag jëliwaat ñëpp dugal ca biir gis nañ ko Amadou Ba gis ko Mimi ak Aly Ngouille te ñooñee ñëpp da leen a dàqoon mais parce que gis nga 2022 Sénégal day dugg na ci jamono ju bees te Macky nag jàpp na ne ay layam layam la kak waaj ak xuloo jàppal bàyyi yooyee moom weesu nañu ko l'observateur ne diggante Macky Sall ak Amadou Ba mi le waaw mbóot ya ca ne Macky tey parce que Macky Sall xam na ne Ndakaaru njaajal jóg gi la mënu koo gañe te àndul ak Amadou Ba boobay benn ñaar Amadou Ba ngay réseau boo xam ni la ilaha illallah xaalis su kese la ñett Macky Sall heure bi mu ko defee ci boppam moo baax di timing ba ñeent Abdoulaye Diouf kay moo war a na ci avenir politique am exclusive yéene kaa ne daal ngarale bu salte la def daa ngarale Amadou Ba Diouf Sarr waaw ci xeexu Ndakaaru njaajal jóg Walfadjri ne gis Joseph Sarr PDS taxaw Dakar day am nañu ñaar Barthélemy Dias ak Soham Wardini APR day am nañu ñaar Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr Abbas Fall Pastef bu Ousmane Sonko last coalition bu rëy gaa ñaa ngi koy toogu de mu ne Ousmane Sonko Khalifa Sall Malick Gakou Cheikh Bamba Dièye Babacar Diop waaye waa PDS day ñoom bokkaguñ ci de Abdoul Mbaye ak ñoom Thierno Alassane Sall ñoom it bokkaguñ ci de tribune yéene kaay 24 heures ak l'observateur ne cirque noir mooy film waajee dane ba bees la dañ ko doon def pour am ay vie am xaalis suñu tourné kon série bi lée eh way sàmba libération yi nekaa ne pende kebe mi nga xam ne farwaa ko rey nee na ab tusik jesner moo tax mu rey ko allahu akbar mbir mi tamit doy na waar ay nit ñoo xam ne dañoo bokk affaire gendarmerie mi ngi leen di wër de ginnaaw nag ba ñu jàppee kon madame Maimouna Sissoko di ko saaga mardi daal di ko wax ay wax yi ñaaw njiital kaasee tout petit ne dama mën ngi leen di wër de dem naa ca lamb ja suñu lamb ne Gaston Mbengue day génneewaat na ay date yu bees Balla Gaye 2 ak Bombardier c'est novembre la Balla Gaye ak Gris Bordeaux juillet 2022 la Gaston Mbengue ne aka yi nga xam ne ñu ngi wàcc tey ci corona gi yaakaar daal la ngi am ba tey waaye Gaston de ak lu mu jël date date date date date date date date date data pétrole ba moom nit mënu koo fàttee bis boobu déedéet parce que suul gaz du ko tere ko fiy tere rek boo paree ma ne la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 àndaat ak Papa Alé Cissé Papa Alé Cissé ana def ak fone Voilà, merci beaucoup Yacine di wax ne mooy dambu théâtre pour ce qui s'est au niveau du rond-point Liberté 6 malgré les travaux en cours na teewul mën ngeen fi jaar daal di wéy seen circulation seulement bu ngeen war rond-point bi mu donc ginnaaw rond-point am ngeen possibilité ñi nga xam ne ñoo bëgg dem di côté de Xaar Yàlla wala sax ngeen jëlaat bi nga xam ne mu ngi leen di yóbbu Camp Leclerc foofu la aussi jafe-jafe bu dee ngeen bëgg dem du côté bi daal di wéy seen circulation ñun nag ñu tàllal daal Touba ci fi nga xam ne moo juróom-ñetti waxtu ci euh, Zik FM Sen TV Sen TV l'officiel tegal na ñaari simili bi la jotaay xibaar la ca gën a fës moo di njombe la nga xam ne moo am ca euh, Saly ñett ci ay ndaw ba dëkk ca Malicounda fukki juróom jàpp fukki at ak juróom-ñett euh, si la ñu toll ñoo lab sa géej ga foofee sa sali mu mel ni kon nag loole ñëw na yokk si li mukk ña nga xam ne ñoo lab ci vacances yi ñu nekk daan si dik si bi la jotaay xibaar ànd ak Alioune a Sonko jana sa yu féete sa Pikine dañu koy yokk loolee moo nekkoon sàkku teefuk askan wa dëkk sa gox ba it ay autorités euh, mu mel ni kon loole njiitu réew président Macky Sall nangul na leen ndax xaatim na ab décret bu nga ne ni ñeenti ci ay hectares la yokkee li nga xam ne moom mooy euh, armeel ya waaye nag euh, fa ñu tegoo seen tànk ñu ko fa teg ba léegi di sàkku ñu jagle leen fukki hectares ci forêt bu mbaaw ndax loolee la nu gën a yittewoo révision liste électorale yi mbind mi yéex na lool ca Grand Yoff ndax juróom-ñaari té juróom-ñaar ci ay doomu aadama lañu jàpp na ñoo bindeegum loole nag waa benn bokk yaakaar sa gox ba ñu ngi koy ñaawlu ba noppi di sàkku rawatina askan wi ñu dem bindu ji jamono joojee sa meewaan waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo fay rek euh, joxoñante baaraamu tuuma ndax naka ñu nga joxoñ baaraam maire ba ci euh, boppam te ñoom ñoo bokk coalition ni kon moom moo téye euh, certificat de résidence yi tàggat yaram Pape Mante Mbu fas yéene ndar bi la jotaay xibaar ak El Hadj Ahmed Aïdara li yéen a kaay xëy dëxëñ ñu taaxirlu wàcc si tali bi seeti dem beex dikk bi ñëwaat Yacine. Voici Trafic News. waaw Yacine. waaw noo def ana foo ne. voilà merci beaucoup jaar nañu sànq ya Mariama Niass vers l'échange daan foofu la c'est pas difficile euh, malgré ay wat yu bëri ñoo fay jaare bokk na ci ñi nga xam ne ñoo bay ko Padoa Cambérène ba sorti péage bi mais teewul mën ngeen ko jaar daal di wéy seen circulation sans perdre du temps si accès boobule bu ngeen dépassé le daan mën ngeen progresser toujours sur l'autoroute ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté de Colobane vers centre bi naka noonu aussi ñu wàcc sur le pont daal di wër rond Maris foofu la tout autour du rond rawatina ñi nga xam ne ñoo bëgg progresser vers l'ambulancerie Kappa foofu aussi mën ngeen fa jaar naam sax da croisé ñi nga xam ne ni nga xam ne ñoo bàyyi ko rond point sortie Maris vers la cité des eaux partir ensuite. C'était Traffic News. Eh aywa merci beaucoup Papa Alé Cissé ñu joxante dig daje euh, si kanam euh, xanaa ma bàyyi la rek ma moom rek. waaw waaw teraanga boo gis teraanga moo koy fere sànq rek maa defaloon teraanga. waaw man naa ni sama café waaw kay. waaw léegi bàyyi ma yeewi dem naa ni café. <laughs> waaw jotaay xibaar bi ñu koy defee saa su ne dañ si ànd ak le député du peuple. Mhm. El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. naka suba gi. sant yàlla alhamdulilah taar kàlla bi rafetee rafeteeti na. merci beaucoup comme d'habitude. merci jaajëf jaajëf ak euh, Birahim Diadji daa jaajëf delloo ziar ñu door bii la jotaayu xibaar nag sàkkuteef gu waa Pikine ga nga xam ne moo nekkoon ñu yokk janasa yi maanaam euh, cimetière yi waaye nag euh, mujj na antu ndax président Macky Sall xaatim na décret euh, yokkal leen sa ñeenti hectare loolee nag ñoom waa autorités yi nee nañu nag loolee lu ñu rafetlu la ñu ànd Cheikh Abdoulaye Timbo maire ba ci boppam. monsieur le président la république Macky Sall situation bi nga xam ne dafa am actuellement ci Pikine te ñëpp ñu dundandoo ko woon fii. xam nañ ne aussi. yàlla dafa dogal population yi dañuy yokk dëkkuwaay yi aussi di gën di bëri nit ñi di gën di bëri ba tax na cimetière yi ñu amoon Pikine ñun ñëpp xamoon nañ ko te yëgoon nañ ko waa Pikine jógoon gisoon ne cimetière yi fi mu toll fi ni fees na waaye ñu am ci mbégte gu rëy ndaxte président la république Macky Sall dafa jël benn décret boo xam ne dafa yokk ci cimetière yi 4 hectares supplémentaires muy benn décret d'attribution boo xam ne def na ko pour cause d'utilité publique gërëm nañu président de la république sant nañ ko bu baax a baax. naam nag ñeenti hectares yu ñu leen jox lu am solo la ñu ngi koy rafetlu di si jaajëfal njiitu réew président Macky Sall waaye nag ñoom fa ñu tegoon seen tànk moo di ñu jox leen fukki hectares ci àllub mbaaw bi ndax nag du sax dañu ko bëgg rek dogot dogotee wala jëlee fa garab yi waaye dañu koy aménager def ko seen mu gën a jàppandi Abdoulaye Timbo maire ba ci boppam la ñuy teewlu ay kàddoom. ba tax na loolu ñu jàppoon ne aussi dañ ko doon ñaan di ko sàkku pour ko ci biir forêt de ñu pour ñu prévoir ay cimetière pour ëllëg lii li ñu dal nii balaa mu ñoo gaaw a dalaat loolu ba tey mu ngi fi même bu dul déclassement parce que ñu bëri dañuy wax naan woy déclassement dañoo bëgg a déclasser de Mbao projet bi ni ñu ko bëggee woon ak ni ñu ko tërale woon li nga xam ne moom lañ ci jublu woon du déclassement pour que ñu ñuy attribuer noonu 10 hectares et surtout que ñu def ko comme dëkk yu bëri ci àdduna yoo xam ne dañ koy def mooy am ay cimetière mais am ko ci biir forêt parce que bëri na ay dëkk yoo xamante ne ci bitim réew tugal di nga fa gis ay ay ay cimetières yoo xam ne dañu nekk mais nekk ci biir forêt nekk ak ay garab loolu nag moo doon projet bi aussi 10 hectares yi garab yi na ma fa nekkee noonu lañ ko fay desale mu ngoog le député du peuple El Hadj mu mel ni kon euh, yokkum euh, ay armeel la ñu doon sàkku njiitu réew mi xaatim na décret bi ñeenti hectares la leen jox waaye terewul ñuy laaj ba léegi 10 hectares ci euh, forêt bu mbaaw waaye càq ma gën këmm mm-hmm. xam nga bu ñu demoon bay tiit naan dañuy dem di teg leen néew yi wala sëg yi dafa fees bu ko njiit réew mi yëgee jël dogal ñeenti hectare du lu tuuti quand même ñeenti hectare mun nañ ci jàppandi. en attendant est-ce que ñun ñu koy joxe ak ñun ñi koy fekkee daañu ko daañu fekk ba muy fees yàlla rek moo xam donc wax dëgg yàlla it nag euh, lu baax bu ñëwee da nga naan dafa baax. loolu baax na wax dëgg yàlla. Mm. ñu ko rafetlu félicité président waaw loolu lu baax la. Mm. Euh, sëgi Pikine dafa feesoon. léegi nag li ci des mooy waa Géejawaay nga xam ni jigéen ay at yu bëri. foofoo jar a wax ginnaaw. ñu hmm. amé aménagé woon fa benn espace wan leen ko ni fii mooy nekk sëgu julli mooy nekk sëgu catholique donc nañ def loola itam président nu continuer ci loola waa géej waaye am ay sëg ñoom itam comme waa mm. Pikine mais ñu rafet lu ñeenti hectares yi yokk ci sëgu sëgu Pikine yi voilà jox nañ leen dix euh, quatre hectares yu nga xam ne mën nañ ko yokkee armée li Birahim waaye nag sànq maa ngi jot ay message ku si mel ni góor gi Yacine booy dëkk ca Mbaaw ak ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi fa dëkk nee nañu àll bi ñuy laaj ñoom dix hectares rawatina àll bu mbaaw bëgguñu ko lu dul di ko doga dogatee def ay kër te loolu si boppam ñoom duñ ko nangu forêt la àll la askan wi diwaanu Dakar loolu la dese comme fu ñuy nooyee moo waral euh, faw li ñu naan contrôle mën a am ndax dëgg la naam c' une très bone chose. li ñu mm. leen yokkal ci wàllu hectare. Mm-hmm. Euh, maire bi mu ngi expliquer sax ba ci yenn projet yoo xamee ni te effectivement da ngay dem ci yeneen réew ci àdduna bi cimetière yi daanaka mool nañ ko ni ko moolee ay garab nekk fa mu doon xeetu àll mais bien entretenu mën nañu euh, dugg ci wàllu projet yu mel noonu. puisque mm. bokk na ci seen i mbébét waaye comme je le dis et je le répète. lu nit di dagg ci wàllu suuf ci réewum Sénégal naka askan wi saytu également. xool ko ñu bañ a doon loo xamee ni euh, dañu naan d' accord dañu leen di jox dix hectares waaye dix hectares yi ñu ne pour cimetière la mu mujjee. Euh, nekk ay yóbbu terrain Birahim <laughs> loolu la il faut que nit ñi xepp seen bët euh, di ubbi seen bët plutôt di xool seen i autorité ñu ngi fa ci wàllug autorité municipale politique ak société civile ñoom parce que bokk na ci seen i xeex ba nga xamee ne du ñu jël suuf si di ko caxat caxatee. surtout que poumon vert bu diwaanu Ndakaaru ma ne sañu jàpp forêt classée bu mbaaw la jamono ji moom lañ fi dese comme àll euh, kon nag nañu ko nañu ko préserver lu am solo la ñu àddu jëmale ci njombe la nga xam ne moo xew sa sali ñett ci ay ndaw la ñu fukki at juróom jàpp fukki at juróom ñett euh, si la ñu euh, toll ñoom ñoo lapp ni ki démb ci ngoon sa foofe sa sali ñu doxe fa ñàkk nag ba kenn loolee ñëw yokk ci limuk ña nga xam ne jot nañu lapp si diiru vacance yi ñu nekk ñu ànd si Xalin Badara Sonko ci biir taw bi ba quatre heures jotee ci la sapeur pompier bu Saly daal di yëg xibaar bi ñetti ndaw lañ ñi nga xamante ne ñoo ngi am quatorze ans quinze ans ba dix-huit ans ñàkk seen bakkan ci plage bu Palm Beach ñoom nag Malicounda lañ bàyyeekoo dañoo ñëwoon sangu ci géej gi. tey moo yi am. quatre victimes. dont trois cent bi. y avait qui ont l'opération. Et mu doon situation bi nga xamante ne jamono ji jaaxal ñu bari rawatina fii ci diwaanu sali ndax week bi dañuy nemmeeku xale yi bari dañuy jóge ci gox yi mel ni dakaar Thiès di ñëw di sangu ci plage yi loolu nag mu doon situation bi nga xamante ne jaaxal ñu bari ba sax ñi samp laaj ndax jotul autorité yi nga xamante ne ñoo nekk ci diwaanu Saly Portudal jël ay matuwaay ci li nga xamante ne mooy sangu yu bëri ñuy nemmeeku ci vacances yi jaajëf Alioune Badara Sonko ñu di kaat fi ci diwaan Dakar wutali ca Parcelles Assainies unité 13 ak 14 foofe euh, bu yeneen gox yi di jàmbat ndoxum taw mu sakkan foofee ndoxum taw mi la ñu booleex li nga xam ne moom mooy euh, ndox yu bon yi euh, mu di wàllum assainissement ci boppam loolee la ñu fay jàmbat ndax ndox mu bon bi xet bu bon la àndal dem ba fekk si dëkkuwaay loolee la ñu bëgg mu dàkk sabab ñu yëkkati seen kàddu Malick Diop kenn si ñoom ñu teewlu ko wax nanga ko ba ko dañ ñëw taxaw ils n'ont pas adressé la parole te ñoom ñooy suñu autorité defe naa suñu amee problème ah ñoom la mairie l'autorité compétente ñoom la mairie biñ fi ñëwee li gën a rafet on se connaît bu ñëwee ñu mën a wax ak ñun mais fi lañ ñu fekk ñu sont pas salué taxaw wax nañ wax seen wax daal di dem seen yoon te xam nga loolu day andi ay ay ay ay ay ay ñagg-ñagg xool parce que mënoo bàyyee nit ji ay difficulté yow yow yaay autorité bi nga xamante ni yow yaa am yaa am compétence pour boog taxaw au moins le minimum seen présence pour ñu xam ni sax ñun am nañ suñu autorité yoo xamante ni jege nañ seen population yaa ngi dégg mais su su demee nii depuis lors gisuñu leen dégguñu leen dafay nekk loo xam ne ñaaw la lii ñoom bañ ko curé depuis presque daaw ba léegi mu ngi ñu bàyyi fii chaque fois ñun amuñu ay moyens dañuy dem avec les moyens de bord fu luy ñëwee dañuy xoos amuñu benn du peel du dara doon nañ ko def mais le calvaire bi suuf bi ñoom ñoo ko fi desandi sa Parcelles Assainies laata ñu koy euh, waxtaanee mu di ñoom jafe-jafe yu ñuy dund nee nañ noppi nañ sax ñoom ngir nag assurer li nga xam ne mooy entretien bi euh, mu mel ni kon nag euh, loole la ñuy sàkku ñu bàyyi leen ko seen loxo vu que ne saa su ne at mu jot ñu jàmbat ko te kenn du leen taxaw Malick Diop ba tey ay kàddoom ak Mouhamed Diaw Sadikh Niang wax nañ ko ne ko ñoom su fekkee ni fournir niñ matériel bi ñun ñu jël suñu propre initiative defaraat egu yi defaraat raay yi gir yi parce que li ñu koy defaree loolu baaxul defar nañ ko réparé ko defar nañ suñ ñu dimbalee ñun hmm, te dimbali seen bopp la parce que ñoom ñoo laaj suñu baat bañ jox leen ko pour ñoom ñu génne ñu ci guuta su fekkee mënuñu ko nañ ñëw taxaw bët ak bët ñu wax ak ñun ñu xoolante ci bët ñu waxante dëgg luñ ci mën ñu wax ñu ko luñ ci mënu ñu wax ñu ko solo nañ ci lii quoi franchement parler moo tax waaw parce que taxaw bu ñu xoolal kër yi ñoom ñëpp fi mu toll nii su nawet bi ñëwee ci cause bu garaaw la ñuy taxaw ñenn ñi duñu du ñu nelaw ñuy sant jeunes ñëpp vraiment ñu ngi taxaw du chef de quartier bu ñu gis du benn autorité locale bu ñu gis bu taxaw. mangook mbir yi dafa mel ni mbajum kanam la ñoom ci boppam askan la ñoo koy fajal seen bopp mi ngi xewee sa Parcelles Assainies unité 13 à 14. Eh, eh, Mambay. Euh, ñii dañ leen war a non seulement encourager mais féliciter leen parce que ce sont des citoyens responsables mhm. face à des irresponsables xam nga citoyen responsable weesul nga ñëw ni nga situation bii moo nekk sama gox ñi ko war a lijjanti tund leen leen muy mairie muy ONAS nga xam ne moom moo yore wàllu réseau d'assainissement ci Sénégal rawatina ci yenn gox yi ñoom ñu jël ci seen i propres moyens ak ci seen cawarte di liggéeyal seen bopp loo xamee ni ñi leen fa waroon a jiitu def ñu ko mais euh, moo waral gis nga Mansour da koy waral da koy wax chaque jour question de vision day am. Mhm. ci ki nga xam ne moom moo jiite gox. maire Parcelles Assainies ci gox bi ñu nekk nii am na lu bari loo xam ne waru woon xaar askan wi di ko di ko feelu wala di ko di taxaw fa nga xamee ni moom fa la war a taxaw directeur ONAS ak ay service ONAS waruñoo taxaw di xaar. askan wi ñoom di def loo xamee ni ñoom la waroon di waa ONAS parce que euh, on peut pas concevoir que ñu ngi ci biir hivernage gouverner si prévoir mu leer na li dinañ jëm ci taw mu yéex. mu bañ a yéex taw dina ñëw bu ñëwee fekk fa li nga xam ne moom mooy euh, yenn ci ay égout ak euh, euh, réseau d'assainissement boo xam ne dafa fattoon te defoo li ñuy woowee opération pré hivernale ba nga xamee ni dootul amati benn jafe-jafe ndox mi bu ñëwee dafay romb wala dafay dugg ci fi mu war a jaar mën a dem ngay dem ba askan wi ñoom seen bopp di jël seen i moto pompe di jël seen xaalis di ci def ba pare li ci gën a metti tu aucune autorité mhm. te bu ñu waxee autorité may lan peut-être c'est l'ONAS bu ñu tolloo ci jamono yu toll nii nag ci wàllug jafe-jafe askan wi di ko dund te gisuñ ñoo xamante dañ leen war a jàppale mais moo waral bu ñuy dem ci élection ni ñuy dem bindu ji li nga xamee ni da ngeen ko fa teg ci ay euh, autorités surtout sur le plan municipal muy maire bi la ñu waroon a liggéey liggéeyuñu ko mais élection bu ñëwee ngeen jëlee leen fa teg fa ñi nga xamee ni ñoom askan bi moo leen soxal. hélas ñoo ko waxal seen bopp mi ngi xewee sa unité 13 ak 14 gisuñu autorité du maire du délégué de quartier du kenn te ndox mu bon bi mu ngi leen di fekk si seen dëkkuwaay est-ce que lii rek doyul euh, ngir nag ñu bàyyi xel bu baax ëllëg ñi ñu war a tànn. parce que tey doon na sax gën a gën a dal xel bu fekkoon te ni maire bi fa nekk. Mm-hmm. contacté na waa ONAS ñooñu defuñu benn intervention kon bu boobaa bu ndaw ñu dee ngaccal seen bopp ndox mi wala euh, canal yi daa ñu gis waa mairie ñu ñëw dénoncé waa ONAS mais doo leen fa gis parce que ñemewuñu faa ñëw parce que ñoom ñoo war a alerter avertir waa ONAS ñu teel a ñëw mën a mën a dindi euh, taq-taq ak salte ak ndox yi nga xam ni mooy nekk ci ci ci ci canal yi mais comme ni ñu jiitee Sénégal ku nekk xam nga ko te boo waxee ñu jàppale opposant wala ku leen di taxé di n'importe mais ku nekk xam nga ni aw askan ak parcelle ni mu ton bu ñu demee ba askan wi di ubbil seen bopp canal yi gis na risques yi ci nekk parce que déjà ñoom duñu ay techniciens ci wàll boobu accident mun na leen faa daal. Mhm. bu leen fa accident dalee euh, dañuy dégager continuer dégager seen ay responsabilité parce que dañ naan mënoon nañu averti waa mairie bu ko defee équipe bi ñëw ñu def benn délégation dem jàll ji nangam nangam toujours duñu prévoir. man xawma prévation ba njëriñ la am ci Sénégal mais nag lépp da fi dañ koy dugal ci peñewu gouvernance bu baaxul ñàkk fullaal askan wi ñàkk bàyyi xel coono ak askan wi mhm. bu fekkonte woon ni xam nañu ni jafe-jafe yow askan wi dund ñoom ñoo ko doon dund tey jëloon nañu seen ay motuwaay koo ci dem fa nga dëkk tey ñoom fu ñu dëkk du am xeetu tataawu ndox yi ndax teel nañu alerté waa ONAS ñu indi ci solution. lu am solo maam Sid nee na politicien moo lëndëm euh, bu ñuy ñëw di. Euh, dagaan sa baat dañu lu la lu la neex rek lañ lay wax. ku ciy dund ak askan lu lëndëm. ba mhm. nga bàyyi xel ëllëg ni yow da nga nekk fu lëndëm xóot tàng xat. Mhm, lu am solo mooy bàmmeel ya jaajëf ñu wutali sa marché Sandaga foofee coow am na fa diggante mairie bu Dakar Plateau ak mair ville mu mel ni kon démb si genox taskatu xibaar yi moom maire bu ville bu Dakar soo xam wàddi ni mu ngay xam ne kon marché Sandaga seen ab marché la euh, seen ak moomeel la xel xalaatul ñu koy bàyyi keneen di ko jëfandikoo ñu ànd si Safietou Bandiaye coowal marché Sandaga bi am ci diggante maire bu Dakar Plateau ak maire bu ville de Dakar mel ni jeexagul ndax maire bu Dakar moom ci boppam fësalaat na ni rek Sandaga seen propriété foncière la mu koy expliquer rek te delluwaat ci histoire ngir màndargaal ko bâtiment principal bu Sandaga ñu ngi ko tabax ci atum 1935 ci titre foncier 48 04 euh, bu euh, toll rek ci 41 070 mètres carrés mu bokk nak exclusivement ci euh, mairie bu ville bu Dakar maire bu Dakar di nakarlu bu baax a baax manque de considération bi mu nemmeeku ci yëf yi nag te ne pare na ngir défendre li mu jàppee patrimoine bu ville bu Dakar. Comment nan la ñu mën a tojee lu mel ni marché Sandaga te yëgaluñ ko kenn waxtaanuñu ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal avocat yi nag dinañ wéyal procédure yi fexe défendre li nga xamante ne rek suñu moomeel la ba bés rek bu ñu koy delloowee lu ko mooy nag dinañ décider leneen lu ñuy def. ou mu mel ni nag moom soo am Wardini du wéet ci bile xeex. sama kaddu samay jëf samay xalaat lépp jox naa ko maire Dakar pour mu doxal ba Sandaga nekk moomeelu Ndakaaru ville de Dakar parce que loolu la yow. Cheikh Gueye profito itam di woo pàcc yëpp ci ñu jiital li nga xamante ne rek moo di waxtaan ak diisoo ci mbir mi ndax jàpp na ni marché Sandaga patrimoine la mu ngoog patrimoine la am déet lu mu ci man ci doon yaakaar naa ne war na mën a am ku arbitré Birahim Touré. ngir ñu xam nag fan la marché Sandaga féete. xam nga euh, ñu ngi annoncé euh, action ci wàllub yoon. ça veut dire mhm. donc yoon peut-être dina àtte foofu. waaye euh, boo xoolee ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk sa argumentaire bi nga génne muy Alioune Ndoye maire Dakar Plateau nga xamee ni dafa sukkandiku ci acte trois de la décentralisation ci wàllu communalisation. ci argumentaire lu soxal mbiru marché ci turu marché kese waxul ci wàllu batiment mais marché bi ci boppam da nga naan argumentaire am euh, taxaw na soo am waati ni indil la tamit beneen argumentaire moom ak mairie Dakar ville euh, muy xam ne ci wàllu batiment bi ci boppam di sàndaga euh, di patrimoine bi mu doon gis nañ tamit ay architecte yoo xamee ni ku ci nekk yaa ngi ciy yëngu ci wàllu bâtiment boobu nga xamee ni moom mooy bu marché sàndaga ak daaneel bi ñu ko daaneel ndax yàgg nañu ko xeex ne bu ñu daaneel bâtiment bi parce que euh, dafa bokk ci patrimoine dafa bokk ci xar kanamu euh, Dakar te loolu depuis déjà plusieurs décennies léegi nag comme dugal nañ ci wàlluk yoon nañu bàyyi yoon def liggéeyam ci wàllu woowu mais ku ci nekk di nga xëccoo ci sa euh, ci sa wàll ci lu soxal mbirub marché Sandaga bi malheureusement am na ay jamono boo doon jël carte postale Euh, nga ñu jaay la ko fii ci Dakar ci jamonoy carte postale mais dafa am ay image yoo xamee ni mhm. dafay des marché mhm. Sandaga ci la bokk mhm. euh, tey dafa mel ni euh, fii yaakaar naa mooy repos Mandel nu ñu koy woowee ah, repos Mandel architecture bi dafa nekk histoire maintenant comment conserver justement euh, loolu mm-hmm. mooy projet bi ñu jël pour mm-hmm. euh, defaraat marché Sandaga si même anam yi ak même architecture bi euh, donte nag ba léegi day nekk góom boo xamee ni am na ñoo xam ne duñ ko mën a supporter El est-ce que du andi ay gàllankoor ci liggéey bi nga xam ne war nañ ko tàmbali gannaaw ba ñu ko daanalee ndax nag Alioune Ndoye bu fekkee wàllum travaux yi moom ci boppam daf ci dugal ab kopparam waa mairie bi je veux dire ci dugal liggéey ba yemb mu ne nañ koy jox waa ville xam nga xam nga ñun lu ñu ku ñuy laaj travaux yooyu mooy gouvernement bu Sénégal. man mhm. fàttali ci jamono nguuru Abdou Karim Fofana bi mu nekkee ministre bokk Aliou Ngouille Ndiaye donc dafa war a nekk 100 pour cent état bu Sénégal lu jëm nag ci wàllu àtte kii moo ko moom wala kii moomu. gestion bi ñu respecter dogal yu bàyyeekoo ci acte trois décentralisation est-ce que bu fekkee am na loo xam ne patrimoine la mondial dañu koy boolewaale ci li ñuy euh, affecté mairie. comme ni ñu ko bindee ci acte trois décentralisation ñoom xam nañu bu ñu ko bindee xam nañu bu fekkee binduñu ko parce que texte mu ngi fi bu fekkee du benn yoon bu ko tuddee euh, ville bu Dakar moo moom parce que bu boobaa tudd ñu benn yoon patrimoine dem bokk ci euh, li ñuy transférer euh, commune bu mu mën di doon loolu benn la ñaareel bi ci des maam saa boo déggee commune ñaaree di réclamer di wax mm-hmm. communalité commune bi mu doon ak li nga xam moom la moom dafay fekk muy buy tàllal loxo maanaam loo xam daf koy jot. Mhm. mais tey bari na ay compétences yu dañu ko transférer commune yi mu bokk ci acte trois décentralisation. te saa mhm. bu askan wi defee manifestation la ñuy jot comme réponse yi maire ba mooy. du suñu mhm. compétence du suñu compétence. tey laaj nañu leen ñoom seen participation bu weesoo ay fourniture scolaire ci wàllu éducation néew na lu ñu koy def ci wàllu tabax ay bérébu fajukaay néew na lu ñu koy def. ku ko fi ku ko fi def day siiw parce que boo koy inauguré kenn dootul dégg c'est-à-dire que gouvernance locale moo sooxe. Mhm. parce que dañuy jël lépp lu ñu am te du ñu delloo ci askan wi li askan wi xaar ci ñoom doxalin boobu nag moom la ñu war a soppi tey bu ko defee bu ñu yeggee ci yu mel nii xëccoo bii nii mun naa bañ a am parce que dafay fekk mu leer gis nga xëccoo bii am ci diggante ñaari maire yi gouvernement bi la neex de moom moo boyal taal bi bu ko mhm. neexoon mu régler ko tout de suite parce que moom moo koy saytu moom moo ko daaneel moom moo ko fay tabaxaat donc xam na kan moo ko moom lan la jublu nag ci tiraillement boobu yàlla rek bu bëggoon mu dàkk tey mu dàkk tey ay ca CUDOPES la ñu tudd kuréel googee moo di cadre unitaire des organisations des établissements privés d' enseignement supérieur du Sénégal euh, kuréel googee nag nee nañu euh, dañuy dàq étudiants yi nga xam ne nguur gi ñoo leen ko dénkoon gannaaw ba université feesee ñu orienté leen ci privé bi ndax nee nañu dañu leen di dàq ba kër gaa nguur gi fay leen lañu leen yoreel bor bi nag toll nañ ci fukki milliards ak juróom benn ñu teewlu sa Dawour Diop yor seen kàddu ak Alassane Balde El Hadj Diène euh, lu ëpp fukki milliards ak juróom donc fukki milliards bu ak juróom-benn boo ko xoolee euh, ci ci atum njàng mill 2018 2019 donc limu mu ñu ameel li mu ñu deseel foofu ëpp na juróom-ñeenti milliards 2020 donc juróom-benn milliard donc deux mill vingt 2021 ëpp na euh, benn milliard. gi farluwul ah euh, pour fay bor bi. donc amul benn cours bu ñuy jox ndongo yooyu nga xam ne nguur gi moo leen indi suñu école yi. mu ngoog muy waa Macky famille yi suma juumul mooy étudiants yi ñu orienté ci euh, privé bi tey ji euh, seen jàng dafay arrêté ndax nag ñoom ñi nga xam ne ñoom moom seen école euh, privée nee nañu nguur gi 16 milliards leen yoreel te fayu leen ko. et ça pas de de cette année. ndax daaw daaw jéeg coow li desoon na gis na ni ki booy leen na ba tàmbali ko ba nit ñi am ci yaakaar ba nit ñi ne la gongo doo xëy benn jour parce que c'était un geste politique nga xëy benn jour rek dindi geste boobu. gàllankoor lor ñoo xamee ni euh, peut-être ñu ngi ci amoon yaakaar parce que au-delà des écoles privées euh, wala euh, enseignement supérieur privé yi nga xamee ne dañu waxoon dañuy jël ay ndaw yóbbu leen fa parce que dañoo bëgg désengorger université publique yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal muy Dakar Saint-Louis ak feneen ak feneen nga dem ba jël loolu ne ni loolu da nga koy def sa cheval de bataille sur le plan politique jël ko def ko loo xamee ne da nga ciy wut ay dividendes politiques Euh, li nga ci bëggoon am am nga ko ci wàllu politique nga jël leen faxas leen euh, loolu dafay euh, doon loo xamee ni di nga gàllankoor ñu dul jeex combien d'étudiants li ñuy wooye les Macky yi mhm. ñoo duggoon ci enseignement boobu waxuma sax université yi li ñu ci perte muy université du Sahel ak yeneen université yi fi nekk waa CUDOPES jiite leen mais étudiants yooyu léegi lan mooy doon seen ëllëg nga dàq leen après ñu def lan dem delluwaat ci biir université yi nga xam ne déjà dañoo surpeuplé université euh, euh, publique yi nag Sénégal surpeuplé ñoom déjà ñu am seen i jafe-jafe finalement donc mooy dañu mel ni dañoo fulaalul njàng mu kawe mi ci réewum Sénégal te loolu c'est assez dommage. mu ngoog c'est dommage 16 millions la laaj ñu fay leen ko ñoom euh, privé yi euh, euh, daara yi privé yi te nag li nga xam ne moom mooy état wala ñi nga xam ne ñoo yor wàllum njàng mi ñu ngi waajal ay orientation yu bees ndax am na ñoo am bac ndax du andi ay gàllankoor jamono ji jamono ji nga xam ne it université yi dafa fees. xam nga daaw waxoon naa ko bi ñuy génnee fonds Covid 19 ñoom aide am aide bu ñu leen joxoon ay subventions yu ñu leen joxoon. man dama waxoon suñu plateau nii woon ni leen man ànduma ci li ñu leen di dimbalee parce que balaa nga may may dama sarax yow fay ma li ma hmm. ameel boobu mu ngi fi <laughs> dañu ko tëjee woon seen gémmañ xam nga loolu dafay xaw a paradoxal dafay xaw a dafa da ngay ngay nekk mag ba noppi nangu lay nax hmm. yow da ngay liggéey am sa ñaq yow li nga ñaq nañ la ko fay balaa ñu lay may ndimbal yow man boo ma amee lay bëgguma sa añ bëgguma sa ndekki hmm. mais jox ma li nga ma amee la ma jënd ci añ ak ndekki donc moo indi problème yi ba léegi loolu benn la ñaareel bi ci des boo xoolee xale yi am bac ñu leen di tudd ñuy jubilé di tàccu man dama leen di yërëm parce que dama naan ñii après baccalauréat lan mooy nekk seen ëllëg euh, tey xale yi nga xam ne am nañu bac ñu orienté leen ci école école yooyu lan mooy seen spécialisation lan la ñu defi parmi ñoom ñu néew la ci yàlla di tàggat ñu ñu teel a spécialisé wu daal di dem pratique ji li nga xam ni fi la seen xam-xam fa la ñu leen orienté ñu néew ñenn ñi dem ubbi ay cabinet ñenn ñi dem nekk ay vétérinaire ñenn ñi dem ubbi benn cabinet immobilier am na ci ñoom certes ñi nga xam ne yàlla moo leen nàmmal boppam tàggatal leen boppam mais qualifié ci benn spécialisation néew na ci ñoom ñu koy def cest à mooy xalaatuñu pour tabaxal seen ay doom orientation ëllëg bu leer alors beneen pays boo dem boo xam ne éducation avancée na fa balaa ngay def baccalauréat xam nga fan fan nga jëm mais tey dañ naan la boo boo booy def euh, série S après fooy jëm médecine mais avant booba mën nga def ni def nii am na ay concours yu ñu leen jàppandaleel ci biir am na ci sax ay étudiants euh, wala élèves yu nekk classe terminale ci jamonoy orientation yi pour ñu def ay concours ci seen biir at boobu dañuy am ay problème ci lijjanti ay papiers pour mën a def concours yooyu boole ko ak seen baccalauréat pour bu bu ñu amee bac sax ñu mën leen orienter foofu et am na ci ay ay ay ay ay. ay point yu leer yoo xamante ni boo waxtaanee ak élèves yi def terminal dañu lay wax seen concours yooyu problème yu ñu ciy jànkuwanteer pour mën ko déposer mën ci participer ba nga xam ni bu école tëjee bu ñu amee bac du ñu sonn ci orientation yi nekk ci université yooyu boo ko dajalee dàmbalee da gis ni njàng mi ci boppam moom la nguur gi fulaalul laajal laajal ñi ñu orienté woon daaw ñuy def première année université nañ la jox seen ay kay nga xool lu ñu jàng ren <laughs> da ngay sax ma euh, ma pate ba si seen TV l'officiel na euh, fukki euh, fukki milliards yi ñu war a génne daf koy tenu lii moo gën a nekk priorité maanaam fay seize milliards yi nga xam ne bor la ba noppi ñu àddu jëmale ci leneen soxal bi la jotaay xibaar mu di wàllum bindu mi yàq certificat de résidence yi nga xam ne jur na coow foofee sa meewaan waa Benno Bokk Yaakaar si boppam ñooy Sango nekk ci coalition ba noppi te jiite gox ba nekk maire ba ne moom moo téye li nga xam ne moom mooy euh, certificat de résidence yi te loolee duñu ko nangu ñaawlu nañu ko si janox taskatu xibaar yi Monica Kunta ay kàddoom ñu lu ko moom conseillère la sa mairie bu Mewane siiwal li nga xam ne moom la fi maire bi di def muy Baara Ndiaye képp koo xam ne ñëw nga jàpp na ni àndoog moom daf lay xañ say droit say droit mooy da ñëw indi certificat de domicile mu ne niñ ko bindee ni ñu cachet bi dafa waroon a xonq dafa waroon a weex dafa waroon a ñuul du nangoo jox kenn euh, certificat de résidence ah ñuy wax ni nag loolu suñuy droit la du ñu nangu tamit kenn koo xam ne danga ñuy xañ suñu droit dinañ jaar fi ñu war a jaar yépp bëgg nañ daal nu mu gën a gaawe ma Baara Ndiaye di jox nit ñi seeni résidence wala su préfet di ko joxe wala bu dee ba gendarmerie sax ñun suñ ñu joxee autorisation ñu dem wuti ko fa parce que nag dañoo bëgg a bindu dañoo bëgg a dañoo bëgg a changer suñu commune. ñu bawoo sa meewaan dikk fi ci doon Dakar wutali ca Grand Yoff mbindu mi foofee yéex na lool bu ñu sukkandikoo ci euh, waa APR ñoom nag dañoo gis ne euh, juróom-ñaar téeméer bi ñu tàmbalee bindoox léegi néew na lool kon nag askan wi nañu dem euh, bindu ji Cheikh Ndiaye ñu teewlu saay kàddam parce que on est presque à mi-parcours joxe nañ statistiques yi léegi jot na nag ku nekk ci ñun mën a sensibiliser ay mbokkam sensibiliser ay dëkkandoom pour que ñu mën a vote voter ñu dem inscrire massivement pour voter incha allahu rabi pour la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne moom mooy la seule alternative crédible ci biir Grand Yoff parce que ñëpp gis nañ situation Grand Yoff après sept ans de mandat gisuñu lenn loo xamante ne tey équipe municipale bi gën tey defal nañ ko commune bi Euh, sa meewaan coowal mbindu mi moo fa am sa euh, Grand Yoff également mbindu mi yéex na bu dee sa meewaan moom ñoom responsable APR si boppam ñooy jox ñeent baaraam ndax maire ba sa euh, sa la bokk ñu bëgg kon nag na leen fa maire na leen yomb yombale li nga xam ne mooy certificat de résidence si ndax am ko fa dafa jafe. mais xam nga loolu c'est un débat boo xam depuis bi ñu commencé euh, révision exceptionnelle sur les listes électorales coow li nee na mhm. ñu naan commission fictive bi ñu fa tax euh, gis nañu ko fii euh, ci Thiès ñuy joxoñ baaraamu tuuma kii di maire bi di Talla Sylla tey encore ci Mewane ak feneen ak feneen c'est tout simplement que li gouverneur du Dakar defoon fii def ko fii ci Dakar ne ni bu ñu xañ ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a bindu wala soppi seen carte d'électeur ndax am na ñoo xam ne mënuñoo. dem élection mais bëgg nañu loolu ñu soppi ko mais euh, gouverneur bi li mu defoon génne benn euh, bataaxal jagleel ko maire yëpp mais nam gouverneur yëpp def euh, la meme chose un peu partout mais homme politique yi ñoom seen bopp société civile ñi nga xam ne dañu war a saytu élection parce que am na ay kuréel yu fi taxaw pour saytu élection mais ñoom nañ def seen liggéey seen liggéey mooy lan ki nga xamee ni moom moo la xañ pour nga am certificat de résidence ak certificat de domicile ak yu ni mais nga jéggi ko demal gendarmerie wala nga dem euh, police commissariat police baa nga woo préfet ou sous préfet wala nga dem ba ci gouverneur boole du question boole mais sa àq ngay delloo si sa àq ngay bëgg ñu delloo la ko nu ñu la koy dellooyee bu fekkee ni maire bi c'est un c'est une autorité politique am na loo xëy ne dëkk bëgg gàllankoor mais nga dem ci autorité administrative bi nga xëy ni yoon moom moo gàll ci boppam ci ndoddam ne ni nangam danga ko war a def ci lu jëm ci wàllu fexe ba askan wi ñi bëgg am këyit euh, lu jëm ci certificat domicile ak yu ni mel ñu mën ko am ci anam yu baax. mooy mhm. euh, ne kon sa Grand Yoff nee nañu mbind mi yéex na lool di jéggalu tànk ceex Bakhoum moo doon wax foofe sa Grand Yoff euh, nee nañ mbind mi yéex na waaye nag sa maire ne nañ ko laa bindu am certificat de résidence ndax maire ba ci boppam day nekk kayit ya El dafa am ñaar yu am mam mbind mi dafay yeex parce que yow ni nga bëgg ñu bindoo ko ci sa diiwaan wala ndaw yi la gëm xëy na bindoo wuñu noonu. mun nga wax ne mbindu mi dafa yeex ñaax ndaw ñi ñu dem bindu ji mais bokkul ak li nga xam ni man bu may wax dama naan ministre de l'intérieur moo ko cautionné muy maire yi nga xam ni comme maire mbeewa meewaan bii mu def mhm. meewoon ndànk seen def ko maire ngexoox def ko maire faneen def ko maire yi toog nii di téye résidence yi ba ñu leen di joxoñ loolu laa ni teguwul fenn gouvernement bi la neex ministère de l'intérieur la neex sous préfet ak préfet ak gouverneur yi la neex fii ci Dakar gouverneur bi fi nekk bi ñu ko defee benn fan dafa teel a génn benn communiqué dànkaafu leen ni leen benn maire amul droit nit ñëw bëgg am résidence da koy ngay takk biiram benn déggoo coow lu fii Dakar. Mm-hmm. te bu fekkontoon am na dakaar xam nga ni Philippe moo gën a jege ko ñëpp dégg nañu ko mais lan moo tax yeneen maire yi préfet ya fa ne su préfet ya fa nekk gouverneur ya fa nekk dànkaafu ñu leen yamale leen. coow daal njëkk mm-hmm. ci Talla Sylla jóge fa dem ndànk seen waaw mu ngi campement wax. waa Mbuur wax tey waa Meewaan wax mais bare njaay moom nañ ko bañ a séntu ci géew boobu. Mhm. moom mënoon na cee bañ a bokk parce que jeune la moom aw na ci presse journaliste la moom xam na lu équilibre xam na lu jaadu donc moo mënoon naa bañ a fekk ci piste boobu na utal ñëpp résidence te wax mhm. ndaw yi mu tollool même génération. mais jalgati goo xam ne kenn du la tudd. Mm, loolu du yoon yow dañu la fee teg nga nekk officier état civil. ñu ni la del signel sénégalais bu amee résidence yow non seulement signé woo ko mais da ngay kompaloo ak chef de village ak euh, délégué de quartier et puis Birahim kañ la ñu gis ci Sénégal ñu ni boo jógee ci village bëgg am résidence da ngay indi euh, certificat domicile domicile kañ lañu kañ la ñu saxal ci Sénégal domicile village yéen est-ce ngeen ko gis hmm. mu ngi soog am ren ba ngeen juddoo ba léegi parce que village képp ki doomi dëkk ba xam nañu la donc euh, domicile ci village mu ngi soog a am ren. ndax jalgati gi maire yi di jalgati et ñu toog seetaan leen moo tax ñu ngi interpellé ministre de ah, xam nga xam nga fi ngay waxee village li tax mu xaw a yéeme mooy xam nga bu dee ci quartier yi ci Dakar ak. voilà location yi ñëw ne la joxeel sa facture ndox. voilà la joxeel sa facture courant. pour prouver ni. fii nga dëkk fii nga dëkk wala joxeel benn kayit buy wane ni yow. yow yàng ngi ci dëkk bi mais village jaru sàngam mais boo demee village. bu fekkee ne xam nañu bàcc mooy doomu sàmm. sàmm mooy doomu noge. noge ay case nga fekk wala ay kër yoo xamee ne peut être biñ ko construire en dur yàggul mais amul numérotation. non dañoo xamante sax peut amul euh, euh, euh, lii di kiiw facture électricité. amul mhm. facture ndox parce que ma teel ba ngeen di dañoo xamante tellement xam nañ ko fu juddoo de telle sorte que duñu sax laaj. Mhm. xamante nañu de xamante nañu. Mhm. de l'intérieur moom moo na def arrêté comme ni muy defee arrêté wala mu def dànkaafu comme ni muy defee dànkaafu xamal maire yi ni leen sañoo leen ko mu ngi seetaan loo xam dina indi dina indi njombe de. Mhm. parce que dina am yoo xam daañu dem uti résidence maire bay taxaw naan juddoo juddoowoo fi day toj noppam <laughs> parce que day fekk moom mu ëpp mair ba sañ-sañ ci dëkk booba maamu gën a valable maamu maire ba ci dëkk booba il faut ñu bàyyi ay caaxaan. Mhm. nit ki du ut résidence fu mu juddoowul ñoom nag dañu koo tàmm ñoom maire yi. parce que bari na ci ñoom ñu gagné woon te ci transfert d'électeurs la ñu woon ay élections. loolu nag la ñuy tiit. voilà système boobu la ñu bëgg a mën waat te du jàll. lu am solo élection yooyu sax sa Tivaouane Peulh ab soxna moo fa samp ndëndëm euh, soxna ay Aïssatou Sow nee na nag faw mu jëlee fa Papis Diop ma nga xam ne moo fa nekk ndax Tivaouane Peulh la ñu yittewoo moo bari lañu ñu namm bari na lool ndax gox ba dara mu fa loolee la bëgg mu dàkk euh, ñu ànd Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. ci jamono bi nga xam ne ñu ngi am xol lu diis ci wàññi te lu toll ci fukki soxna ak ñeent ñu nekk ay maire ci total bu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay commune benn candidature bu soxna nag daat nañ koy ràññee fële ci Tivaouane Peulh ñàgg mu am yéene ci toog ci boppu mairie bi. man ay sër mënuma dara ginnaaw yi soo gisee tey ma taxaw nekk sama ginnaaw yi ñu ma tax parce que ñoo ma doolal ñoo ma taxawal ñoo ma teg ci yoon bi man nag social rek laa mun ak jàppale leen bu ñu ñëwee ma xam lii su ma joxul taxaw déjà fii dara du baax man maa dund fii ci Tivaouane xam waa Tivaouane lu ñu dund xam problème Tivaouane Aïssatou Sow di conseillère municipal ñu xamee woon ko lool ci jegeem ak ki nga xam ne moo di maire Tivaouane Peulh na dina jël dogal nag ci taxaloo ak moom ngir daal di soppali xar kanamu collectivité territoriale bi nga xam ne moom jàpp na ne am na lu bëri yu fa manqué. courant doyul tali tali amul ndox amul école amul hôpital amul commune bi lu ma toll benn benn benn dispensaire la ñu am dëkk bi benn gendarme la ñu am mu ngi sokaa beg dafa sori ci wampal dafa rëy tey dafa war am sécurité dara duxul fi gannaaw candidature indépendante bu ñu ràññee woon ci diir bu yàggul dara fële ca ñàkkur ak caawoon pël ñàgg daal di enregistré lii di candidature ci wàllu soxna yi alaaj mu ngook Aïssatou Sow samp na ndëndëm sa tuwaan pël waaye it uh, ku ci mel ni Marème Thiam Babou sa fa mu dëkk samp na ndëndëm uh, ki nga xam ne moom mooy la laay Chofal sa uh, HLM moom it samp na ndëndëm candidature yu jigéen ñi mu mel ni it ñoom ne nañ lañ leen jox seen chance dëggantaan dañ leen war a jox seen chance ñu wane ñoom lu ñu mënee parce que dañu am doole te ba léegi nangu lu ñu leen seen seen doole mm-hmm. sëñ Cheikh Tidiane si doon na ko nettali Euh, ci benn Israël benn moment ñu dem ba doy li jigéen ñi jigéen mënut a jiite lii jigéen mënul lii jigéen mënul lii jigéen ñu kompolo ni kay leen ñu faj leen ci bu gaaw bu ñu leen joxati ñu lekk bu ñu leen fóotalati bu ñu leen joxati suñu bopp ñetti fan góor ñu ni nem te gestion góor boo gis mu normal jigéen a nekk ci biir moo nekk ci a te bu ñu nee mairie ñu ni jigéen est-ce que antan na ko mm-hmm. te jigéen ñi def lu lu lu am solo. bu fal jotee ñooy ñoo ci ëpp sa ñooy fal sax. mais ji ñooy mobiliser. ñi ñi ñiy di nekk ay jigéen ñoo ëpp. ñoo ëpp. te bépp maire boo gis tey militant yi nekk ci ginnaawam jigéen ñi ñoo ci gën a fidèle jigéen ñoo jigéen moo jëkk a xeex ci bu fekkee dañuy défendre maire. Mm-hmm. mais nañ leen leen ñam ñu doxal xool ba xam. foog ñu ñam leen ñu doxal. Mm-hmm, pourquoi euh, pas comme Marème euh, madame Babou. Mm-hmm. Marème Thiam baabu mais mais euh, koo xam ne ci social ngay nekk ci fi nga dëkk ba ñëpp xam ko média yi ñëpp di ko wax. mais nañ la ñam ba xam. xool ba xam ki nekk Tivaouane ko ñam. xam na ni maire ba doon doxale bu demee ba seetlu maire ba xam ni maire bi na muy doxale baaxul man am naa nu gën ni maire bi doxale mais nañ ko ñam. ñu essayé ba xam foog ñu ñam jigéen ñi. ay jërëjëf nañu ñam jigéen ñi 557 ay moo fi nekk 14 rek la fa ay jigéen jiite. Euh, xam nga dafa am mhm. benn genre euh, maam ay prise de conscience boo xamee ni collective lañ ko mën a waxee ndax prise de conscience bi euh, mooy ndaw ñi nga xamee ni de plus en plus lañ leen di gis ñuy bindu pour nekk maire wala di xëccoo pour nekk maire ci seen localité waaye tamit jigéen ñi parce que il ne s'agit pas seulement de euh, yam ci wàlluk mobilisation organisation euh, tàccu euh, woo ay nit pour feesal yenn ci ay meeting ñu jox leen wàllu woowu mais tey dañoo rendre compte ni mais li góor mën jigéen mën na ko loolu moom c'est de de tout temps mm-hmm. te sax ci seen wàlluk gestion mais aujourd'hui on a le maire de la ville de Dakar Soham Wardini mais jigéen la voilà jiite capitale mm-hmm. Sénégal doxalin wu am solo Louga gis nañ fa aminta Aminata Mbengue Ndiaye moo fa nekk boobu ba tey ñu ngi jëm ci ay élection peut-être nit ñi soppi ko wala bañ ko soppi. ak yeneen i diwaan ñoo xam ni Aïda Mbodj. présidente conseil euh, euh, Lyon du Baol ni ñu koy waxee. Mhm. docteur docteur Aïda Mbodj. Mhm. jiite tamit euh, localité collectivité territoriale mhm. mais ay nit a ngi fii ñoo xamee ni. mais di ñoo jiite ay collectivité territoriale muy mairie wala muy. conseil département Mm-hmm. Aminata Tall et cetera mais su sont ay ay jigéen ñi nga xam ne yu mën góor ni ñu ko mën a waxee aujourd'hui il y a deux nouvelles donnes mooy la jeunesse et les femmes jeunesse bi ñu bëri ci yenn ci ay yaa ngi wax sànq Baara Ndiaye euh, ca Meewaan mais yeneen i jeunes a ngi fi ñoo xamante si yeneen i gox ñu ngi xëccoo pour ñu jox leen mairie mën nañu ko c'est sur le terrain lañ koy xamee jigéen ñi également ndax mën nañu ko loolu également kenn naatable wu ko ñoom nag mm-hmm. ñoom ñooy jël seen fit nu ñu ko mën a waxee pour taxaw mais jàkkaarloo ko xamee ni peut-être dañ naan ni kii c'est un ka wala ci wàllu politique ku am taxawaay la mais yow miy jigéen wala yow miy ndaw nga wane ni tey war ngaa mën a soppi xar kanamu sa euh, diwaan bi nga nekk mais il faut y voilà moom l'honorable député maam Diarra Fam nee na sampul ndënd yem si nee na moom sabaram la samp euh, sa ginnaaw raay noor bi yeboon nañu ko xamee noonu <laughs> l'honorable député maam Diarra faam euh, jaajëf mu nekkoon pàcc bu njëkk bi soxo bi la jotaayu xibaar bi Birame Ndiaye Touré dafa mel ni réunion bi da xaar de. waaw incha allah hmm? ñu war a fas yéene euh, waajal ak taxawu suñu. waaw Chimère Diop El Hadj il faut après ñu dem dem fa aussi. Hmm. waaw ñu ngi yoon na daal ñu ñu taxawu ko ndax. ñu ngi koy métit lu bu baax di bokk ak moom tis bi ah mais juste pour def benn précision quoi ci euh, Aminata Tall xam nañu nekkatul maire Diourbel da nga jaay xam nañu mhm, ci seen jot nañu fa jaar nañ ci ci ci maire yi a gën a euh, encouragé ñi fi nekk parce que tey Aminata Mbengue Ndiaye li mu jiite moo gën a diis maire muy au conseil. mais euh, ko déggee élevage liggéey bi rek euh, bu ñu ko déggee élevage liggéey bi rafetoon na conseil économique social et environnemental. donc ku ci nekk jiite nga institution bu gën a di sax mairie. Mm-hmm. ak ni ñu nekkoon jigéen comme ay dem booj nekk jàmbaar moo tax Birahim cité leen comme ay mm-hmm. exemple. oui oui c'est surtout ko. nekkatuñu ko surtout mais fa nekkee. yaakaar naa gis nañ seen liggéey. Euh, ba ñuy installé ay dem booj boobu maa ngi ba ñuy installé Aminata Mbengue Ndiaye boobu maa ngi maa ngi Sud FM. Mm-hmm. nekk correspondant justement à Louga. kon euh, jotoon nga ne correspondant Louga. <laughs> waaw Birahim mi ñetti ñetti weer de ñoom kay xam naa ne <laughs> jaar naa fu xam-xam daal di <laughs> caaxaan de expérience daal mooy xam-xam. bilaay moo tax feeñ na expérience baa ngi fi. macha allah jaajëf le député du peuple rendez-vous 13h. 13h incha allah ci kàllaamay Kocc. Kocc ba amay incha allah si 89.7 Zik FM Birahim Touré Nasaraan FM ñu dalal Pape Mante ci tàggat yaram. bàkk ba ji Pape Mante bu daa teew mën a kaay salaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. naka yi tey. alhamdulilah naka tey. ah waaw ñoo ëpp nag fu mu toll. borom Jam City ak Douga tirage au sort bu CAN la ñuy waxtaanee Sénégal moom dana xamee adversaire am jii. kon tey jii nag ci ngoon bu 18h jotee foofu ca Yaoundé ca Cameroun nag si lañ fasal amal loolu la di tirage au sort jëm ci Coupe d'Afrique des Nations kon équipe yu bëri nag dina leen fixé jëm nag ci seen adversaire ci euh, premier tour bi kon euh, personnalité yu bëri sax ñoo ngi leen di xaarandi foofu ci Cameroun ngir nag lu jëm ci boobu la tirage au sort ñeent chapeau nag moom moo ci am ngir nag ñu saytu. yéen équipe ñoom ñoo fas yéene nag bokk poule ñu ànd ci ak président Lamine Gueye. capitalu Cameroun moom mooy nekk attraction bi suba ak tirage au bu jëm ci coupe d' afrique mille vingt mu mel ni sax président confédération africaine bu football Patrice Motsepe moom yegg na sur ki topp ci moom di premier vice président am Augustin sengor moom mi jiite waat fédération sénégalaise bu football moom it ñu ngi ko fay xaar ak délégation mu mel ni tirage bi dafa jëm ci ñaar fukki ñeenti sélection yi nga xam ne ñoom ñoo qualifié te mu nekk gulet ay qualifié yoo xam ne dañu leen tas ci ñeenti chapeau xam ne bu ci ne am na juróom benn équipe loolu nag jóge ci dernier classement FIFA bi mu génnee lu ni mel sax moo tax Sénégal bokk ci chapeau bi moom mu jiite classement bi Sénégal bokk kook favori yu mel ni Cameroun mi dalal compétition bi Algérie mi défendre titre wala bokk Maroc Nigéria ak Tunisie bu ñu jógee ci tirage bi dina nu taxawal juróom benn poule yoo xam ne bu ci nekk ñeenti équipe ngay am jëm ci premier tour bi nga xam ne war nañ koo jongante ci CAN bi nga xam ne day door le 9 bi bii bi nag ñu ngi ko jàpp le février ñu am yaakaar lool ne ci boobu le Sénégal dana ci bokk pour mën a gagner enfin Coupe d'Afrique bi nga xam ne peuple bi yépp moom la ñuy réclamer Pro basket 2021 jëwriñ ñu dénk wàllu tàggat yaram bu 10 heures jotee tey jii lay jox drapeau bi suñu équipe euh, équipe nationale euh, masculine bi. oui oui kon jàppal ne kon ci kanam tuuti la foofu ca Dakar Arena bu 10 heures jotee nag si la kii di Matar bu yor nag wàllum tàggat yaram di fas yéene nag jébbal drapeau national bi équipe nationale masculine bi nga xam ne nag day nag waajal ngir dem foofu ca Rwanda ngir lu jëm ci wàllum ak coupe d'Afrique jëm ci basketball ni ki ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru ut gi ñu nekk jàpp juróomi fan. ci weerum septembre foofu ci Kigali di fàttali sax ni Gorgui Sy Dieng ak ay ñoñam ñoom jeexal nañ nag lu jëm ci wàllum tournoi international bu Ndakaar bu ñu doon amal euh, fii euh, foofu ca Dakar Arena kon mu nekkoon tournoi boo xam ne Sénégal nag wane na ci boo xam bu baax a baax ndaxte jogante yi am yëpp da cee nag euh, jëlee ndam jàppal sax li sëkk fukk ñaari joueurs yi kon kii di Boniface Ndong mi nga xam ne moo leen tàggat moom daal moo ngi xam ne nag ci dernier jour entraînement bi si leen nag fas yéene fësal tàkko faal moom du ci mujjee bokk kon ñu jàpp ne équipe bi ni ko àjjuma nag la fas yéene jógee fii ci Ndakaaru ngir dem foofu ca Kigali ci Rwanda di fàttali ni Sénégal moom mu ngi ci poule bi ànd ci ak Cameroun Soudan du Sud ak Ouganda compétition bi nag kii di Tunisie moom moo gàddu raaya gi waxtu wi moo ko yor kon depuis ci atum 2017. barrage euh, barrage Ligue euh, des champions euh, dernière étape bi mu mel ni kon laata ñu yegg ci phase de groupe bi tey jii. waaw tey ji nag uh, ci ngoon kon jàppal ne bu 19 jote uh, jotee uh, Salzbourg moom moo fas yéene dalal équipe bi di Brondby ci boobule waxtu nag ci la Monaco bu ñoom Krépin Diatta di laale ak Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol ak Dinamo bu Zagreb la ni ki ëllëg nag lañ ko fas yéene wëyal ak ñii di waa Young Boys ak Ferencváros la loolu bu 19 heures jotee Malmo moo ci dalal ñii di waa Ludogorets Benfica ak PSV bu Eindhoven la match retour yi nag ni ki ñaar fukki fan ak ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weerum août lañ koy amal ñu jàpp ne sax yooyu la équipe nag ku ci qualifié da ngay dem nag rejoindre directement ñaar fukk ak euh, juróomi benn équipe bi nga xam ne waxtu wi ñoom jot nañ qualifié directement nag ci euh, ligue européenne des champions tirage au bi nag dinañ ko amal ni ñaar fukki fan ak euh, juróom benn waaye nag équipe yi nga xam ne dañoo nag daanu ci yi lay jongante ñoom da leen di yóbbu rek ci phase de groupe ci lii di Europa League bi nga xam ne tirage au sort bi dinañ ko amal ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar Europa League bi également barrage ale yi tey ji la ñu koy jongante waaw tey ji nag la ñu koy tàmbali ak benn jongante rek tey ci ngoon 19 heures étoile rouge mooy dalal la ñuy di waa Cluj ni ki ëllëg nag 18 heures 45 Celtic Glasgow ak AZ Alkmaar lay doon kon di dinañ ko wéyal ni ci alxames gi ak yeneen i jongante bu ci mel ni Rangers ak Galatasaray Omonia mooy dalal ñii di waa Antwerp Slavia bu Prague ak Lechia Varsovie la ñii ak Sturm Graz la moo ci dalal ñii di waa Helsinki Rapid Vienne ak Luhansk